ngeen de eh, vidéo boobu de parcelle la amee parcelle xool leen booy yëg takk yi ñii de bu ñëpp meloon ñoom xeex bi jeex na bu yàgg xoola booy rek macha allah xoola takk yi daw rek daw dong lañ yaakaar da eh, boo yaa ngi sànni ay cocktail da nii la nii la affaire bi nii la wala takk der ñu ngi daw léegi booy ay jàmbaar ngeen de macha allah xoola xoolal xoola takk der daw dong lañ yaakaar daw am ay ndaw yu engagé woo nii ngir seen réew macha allah xool policier yi moom ñoom moom boo leen njëkkoon daw fii ngi jàpp la de bu leen bàyyi de. fi ngeen ko jàpp foofu la de ciy booy yàlla na yàlla yàlla sàmm waaye yàlla na yàlla aar yàlla na yàlla sàmm ay jàmbaar dëgg ngeen wallahi ay góor dëgg ngeen li ngeen def ni yombul de ay góor dëgg ngeen de yàlla mi sàmm daan yàlla na sàmm